Abdul Xafoor Mbàkke sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke mu ngi feeñ jamono nag ci atum 1921 ci dëkk bii nag waajuram nekkoon nag di Mbàkke Bawal ci suuf si nag di Mbàkke Xewar ci quartier boobu nag la feeñe jamono ci atum 1921 muy doomu soxna Awa Géey ak sëriñ Mammoor Jaara Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke nag ginnaaw bu mu feeñee jamono nag ci atum 1921 sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nag moo joxe aw turam mu nekk nag caatum Mammoor Jaara am na ñu wax ne nag fekkante ne feeg Mammoor Jaara nag ay weer soxna itam nag ginnaaw maam Mor Jaara nag la feeñ jamono am na ñu mbokkal nag soxna Awa Guèye moom sëñ Abdou Xafoor Mbàkke nag ak maam Mor Jaara ñu mën cee ràññee nag sëriñ Maxtaar Awa Guèye Mbàkke ibnu soxna Awa Guèye ibnu sëriñ maam Mor Jaara Mbàkke sëriñ Mahmoud Mbàkke ibnu soxna Awa Guèye ibnu sëriñ maam Mor Jaara Mbàkke ak moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke ibnu soxna Awa Guèye ibnu sëriñ maam Mor Jaara Mbàkke ñaar nag la bokkal maam Mor Jaara ak soxna Awa moom nag muy ñett ginnaaw bu fi maam Jaara bàyyi ko nag ci atum ne la seexul xaddim nag wax ne soxna Awa Guèye suñ borom de xamal na ma ne sëriñ Masamba Faati Buso moom sëriñ Buso bi Buso nag moo la war a yor keroog nag bi mu koy wax nag soxna Awa Guèye soxna Awa Guèye nag mi ngi koy xamal ne foo ma man di yóbbu nag ma dem fa lum lëndëm lëndëm nag bala faa egg dana leer naññ nag ndax sa ndigal moom soxna Awa Guèye nag bi muy dem Gédé sëriñ Touba Cheikhul Xaddim Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke nag la ko booleel mu yit nag sëriñ Masamba Faati Buso mook sëriñ ma sàmba Faati Buso itim nag am nañ ak njaboota ñu mën caa nag sëriñ Cheikh Abdul Wahid Bousso ibnu soxna Awa Guèye ibnu sëriñ Masamba Faati Bousso sëriñ Baay sëriñ Bousso ibnu soxna Awa Guèye ibnu sëriñ Masamba Faati Bousso ñaari bant itam la ci sëriñ ma Masamba Faati Bousso am ginnaaw sëriñ Masamba Faati Bousso lañ ko jébbal nag sëriñ Aline Jëmb Bousso nekkoon itam nag doomu sëriñ Bousso bee soxna Awa Guèye nag mook sëriñ Aline Bousso nag am nañ benn bant muy soxna maam Bousso Bousso njaboot gii nag mooy njabootuk soxna Awa Guèye ñii itam nag la sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke na bokkal waajur wu jigéen na ngir xamale leen nag bokkal waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan magam ji nag di sëriñ Mahmoud Mbacke doomu Maam Moor Jaara xalifaam nag mooy sëriñ Maam Moor Mbacke magam ji nag di sëriñ Maxtaar Awa Guèye xalifaam nag mooy sëriñ Xaadim Maxtaar Mbacke rakkam ji nag di sëriñ Cheikh Abdoul Wahid Bousso bàyyiwu fi nag ak njaboota rakkam ji nag di bàyyi sëriñ Bousso mooy xalifab nag képp nag ku sant Bousso nag jamono ji rakkam ji nag di soxna Maam Bousso Bousso bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Xari Bousso nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Xari Bousso nag am nañ ak njaboota ñu gaañu nag sëriñ Modou Bousso sëriñ Abdou Lahad Bousso soxna maam Awa Bousso soxna Momi Bousso ak sëriñ Fallou Bousso nag ma a laaxu njaboot yi ñu leen tuddal nag ñooy jarbaati sëriñ bi bi mu matee dal alxuraanul karim la ko sëriñ Mbàkke sa jël nag jébbal ko taawam ba nag di sëriñ Modou Bousso sëriñ Modou Bousso nag moo ko jàngal nag alxuraanul karima laata sëriñ Touba Seexul Xadim nag di fi bàyyi ko la doon xamal nag sëriñ ma Masamba Faati sëriñ Abdou Xafoor moomu nag ànd ak waajuram saa bu matee dal alxuraanul karim nag na ngeen ko jàngal moo tax it nag bi matee dal alxuraan alxuraanul karim ñu jébbal ko nag sëriñ Modou Bousso nag mu nee woon nag taawub sëriñ Mbàkke Bousso ginnaaw sëriñ Modou Bousso la ñëw nag ci loxoy Cheikh Mamadul Bachir ibnu sëriñ Touba Cheikhul ma Cheikh Mamadul Bachir nag moo ko jàngal xam-xam ci ginnaaw nag bu mu nekkee Kaolack nag ci ndooraan la ko joxoon nag ku ñuy wax sëriñ Ousmane Kane nekkoon nag nijaayu Cheikh Tidiane Sy mi nekkoon nag xalifa général nag dee Tidiane ginnaaw sëriñ Ousmane Kane itam ñëwaat na njaareem nag ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem ginnaaw sëriñ Mouhamadou Dem itam nag demoon na Ndar ci loxoy nag sëriñ Ahmed Jaxate ci ñii nag la jaar nag ci wàllum njàng bi mu noppee nag Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag moo ko jëlitim nag tarbiya ko bi mu koy gërëm nag la ko yabalitim nag mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag Bat Lamine ñu gën koo xam nag ci Bat la ci taalibeb sëriñ Touba Seexul Xadim nag bu fa nekkoon buñ doon wax nag sëriñ Moustapha Bey bi mu eggee foofu nag ci lettre bi Cheikh Mamadou Bassir Mbacke bindoon sëriñ Moustapha Bey mi ngi koy xamal ne kooku fi ñëw de sama rakk la yar nañ ko jàngal nañ ko lépp nag lu war a nekk itam nag ci doomu soxna nag mi ngi ci moom moo tax itam nag ma yabal ko yi xam nañ ne itam na ku bëgg sëriñ Touba nga taalibe nga mu boole koog nag ku ñuy wax sëriñ ma dikke Gajaga ak sëriñ Abdoulaye Dieng ngir ñu gunge ko ginnaaw bu mu ñëwee foofu itam ci lettre boobu Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag bindoon sëriñ Moustapha Bey tax na itam nag sëriñ Moustapha Bey nag daanu fa ba foofu itam nag fukki nit nag ak ñaar jébbal leen sëriñ Abdoul Khafour Mbacke nag ngir ñu ànd ak moom nag ca liggéey ba ca fukki nit ñaak ñaar nag ñu man caa ràññee sëriñ Ousmane Bey sëriñ Moussa Diop sëriñ Moustapha Bey yoo xam ne nii itam nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag moo ko ko joxoon mu jox ko nag sëriñ abdul xafoor mbàkke nag addiya demaatoon na dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag saare daawoo dëkk bii nag juróom-ñaari at nag la fa sëriñ abdul xafoor mbàkke def dëkk bi itam nag la njëkk a amee kër bi muy dem nag ci dëkk boobu nag di saare daawoo sëriñ mustaf bey mii ko mu mamadul basir boole loon nag la àndaloon ñu fekki woon nag taalib yëpp cheikh mamadul basir buñ doon wooyee nag sëriñ daawoo bey ginnaaw bu mu eggee nag la ko sëriñ daawoo bey nag may kër mu nekk fa juróom-ñaari at suñu boroom ci biir juróom-ñaari at yooyu mu fa nekkoon nag daana amal nag ab tukki ci tundu mbawoor wi ci atum 1942 nag la ñëw foofu ci dëkk bu ñuy wax nag caari mbawoor ci caari mbawoor gi nag la tàmbalee liggéey nag dëgg dëgg nag ci tundu mbawoor wi fa la amee nag ñaareelu këram fa la laaja ndigal nag cheikh mamadul moustapha mbàkke mu nag cheikh mamadul moustapha mbàkke nag ma nga tàyyi fa mu laajaat ndigal itam nag cheikh mamadul bachir booba itam nag cheikh mamadul bachir nag ma nga kaw la gàmmu googu nag ba nëgën itam nag ma ngay dox ci atum 1943 nag la gàmmu gën a nag ma ngay wéy nag di am doom ji nag di sëriñ Moustapha Mbacke imaam itam ma ngay sàmm nag ndigal loolu fa waajuram nag bawoon di gàmmu gi foofu itam nag fa la njëkk a taxawale nag daaray tarbiya adresse bi mu gën a am itam nag ci dëkk boobu nag la ko am sëriñ Abdul Xafoor borom caari nag la ñuy wax sëriñ Baabu Faal nag la fa fekki woon tundu mbawoor woo itam nag kilifa yam fa nekk ndooloon ñu mën caa ràññee nag sëriñ Alim Faal mbawoor sëriñ Moodu Bey Mbul sëriñ Màkka Saar sëriñ Tuxaa Jokkul ginnaaw bu mu ñëwaatee nag ci dëkk boobu nag di caari mbawoor ci nag soxna Mbène Bey yaroo nag ci kër sëriñ Masamba Diop Sam nag moo ko doon toppatoo ginnaaw foofu itam nag jàll na nag ci dëkk bi nag di ndar géej ci atum 1948 ndar googu nag ba mu fa eggee bari na nag ay taalibe nag yu jébbalu nag ci moom mi man caa ràññee nag sëriñ Adama Diagne soxna Awa Diagne Adama nag ak Awa ay seex lañ te ña fa jébbalu itam nag ñu mën caa ràññee sëriñ Ibrahima Diagne sëriñ Gàdd Kan sëriñ Abdou Khadir Thioune sëriñ Pape Alassane Samb sëriñ Semo Diouf sëriñ Sidi Dieng sëriñ Ibrahima Ndaw ak ñeneen ak ñeneen ginnaaw ndar googu googee itam la demaat na ci dëkk bu ñuy wax nag Puutu ci 1953 Puutu googu nag ba mu fa demee ci 1953 ku ñuy wax nag sëriñ Abdou Mbacke mu ndaw nag la doon àndal kër sëriñ Alsaan Guèye nag la daloon ku ñuy wax nag sëriñ Abdoulaye Mbaye nag di taalibeem nag moo ko fa joxoon suufa wala moo ko fa joxoon nag kër nag gu mu dëkk ginnaaw foofu itam nag jàll na itam nag ci dëkk bu ñuy wax Mboro ci 1954 ma Madieye Diop nag la fekki woon foofu itam nag ba mu fa demee itam am na itam nag ay taalibe itam nag yu jébbulu nag Guèye Ndiaye Serigne Bamba Ba Serigne Maguèye Diop ak ñeneen ak ñeneen ci 1960 nag la jàll Ndakaaru daana def nag fukki fan juróom yu jot nag ci weeru koor nag fa lay eggalee koor ga jullee fa korite jiite leen nag ñibbisi booba nag ci kër taalibeem yi nag la daa dal ginnaaw bi nag lay doog a wut kër nag ci Ndakaaru ci quartier bii nag di Colobane nag Angle Moussa amaatoon na kër nag ci Sicap nag jëppal 1 amaatoon na kër itam nag ci Liberté 6 mu di leen di jiite nag nag bi cheikh Abdou Lahad Mbacké nag toogee xalifa général des Mourides ci la sàkku nag ci doomu Maam Mor Jaara bi ngir mu bàyyi nag dëkk yi mu wër nag di dem te del si Touba nag ànd ak moom nag ñu liggéeyal sëriñ Touba Seexul Xadiima sëriñ Abdou Xafoor itim nag nanguloon na sëriñ Abdou Lahad Mbacké lool mu wax mu del si nag Touba nekk itim nag Touba ci kër gii ko cheikh Mamadul Basiir Mbacké nag jébbaloo nag ci daarul Minam sëriñ Abdou Lahad Mbacké itim nag moo sàkku ci daayira nag bi nekkoon Murtani ñu yàlla na ko fay tim nag am néeg barkeelu nag ci doomu maam Mor Jaara bi mu wéy nekk nag ci ron sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bokk itam nag ci ñi koy xelal ànd ak moom itam nag di liggéeyal sëriñ Touba Seexul Xadiima ba ci atum 2003 mu toog nag toogaayu maam Mor Jaara mu nekk nag juróom-ñetteelu xalifa maam Mor Jaara wuutu ko nag ci atum 2003 nag ba ci atum 2008 ginnaaw bu mu toogee toogaayu maam Mor Jaara nag moom sëriñ Abdoul Xafoor Mbacké mu def nag lu takkoo takkoo takku nag mu toogee maam Mor Jaara gi ne ku fi toogal maam Mor Jaara nag yaa moo ko fa def mu boolewaat nag njabootug maam Mor Jaara gi di def itim nag alxamis ju njëkk nag ci weer wu jot mu sàkku itim nag kenn itim nag ci njabootug maam Mor Jaara gi mu toggal nag mbooleem njabootug maam Mor Jaara gi añ ñu bokk nag yendu gën a dooleel itim nag màggalug maam Mor Jaara gi mooy doomu maam Mor Jaara itim nag bu mujjee toog nag ab toogaayam ci mbooleem nag doomu maam Mor Jaara yi mu nekkin nag ku tabee tabee tabe lépp lum yor nag képp koo xam nii nag ñëw nga ci moom soo ko soxlaa nag mu jox la ko ku bëggoon itam nag alxuraanul karim la ba saa su na itam nag daana ko jàng ku doyloo woon itam nag waajuram la maam moor jaara mu nekkoon itam nag ku kiimaanee kiimaane laata muy toog nag toogaayu maam moor jaara daana def nag ay tournée nag ci tundu mbawoor woowu am na benn bis nag mu dem nag ab dëkk nag ci tundu mbawoor woowu bi muy dugg dëkk ba nag ci délégation nag bi mu àndaloon am na kuñ ci doon wooye nag góor gi yabal sëriñ yabal bi sëriñ abdul xafoor nag di dugg nag ci dëkk bi jaan nag ju ñu gisa sëriñ yabal moomu nag moo dogale nag jaan ja faat ko ginnaaw bu mu ko faatee nag ba waa dëkk ba nag yëg ne seen tuurub dëkk bi la kenn nag ci ko àndoon nag sëriñ bi nag faat ñu jaaxle nag tàmbalee yuuxoo foog ne daal seen àdduna nag dana am nag ay jafe-jafe coow loolu nag ginnaaw bu mu jëmee kaw nag ba sëriñ bi nag yëg ko la leen di xamal ne jaan jooju daal lépp loo xam ne nii daal gis nañ ne nag ci la bokk nañ ko dajale nag indiwaat ko nag fii mu nekk biñ fabee nag jaan ja nag indi ko nag foofu mu nekk la bi nag jaan ja nag dundaata ñu leen nett li nag mi ngi amee ci dëkk bu ñuy wax nag Panké Sarr ginnaaw nag bu sëriñ na nag tundu mbawoor woowu nag gën a naw nag doomu Mammoor Jaara kenn ku ne nag tegoon nga ko nag sa wet rawatina nag magam ji nag di sëriñ Maxtaar Mbàkke Gàllee sëriñ Abdul Latif Mbàkke nag daana wax ne sëriñ Abdul Xafoor nag ñoo ko mag su ngeen gisee nag fu mu nekk nag ñu fekk ko fa jikkoom nag moom moo tax njaboot gi mu séqal Mammoor Jaara la ko dale nag ci sëriñ Moor Soxna ba ci sëriñ Abdul Latif Mbàkke Mbacke ñoom ñëpp nag ñoo maasi woon nag bëgg nag seen rakk ji nag di sëriñ Abdul Xafoor Mbacke ku jaxasoo woon nag sëriñ Maxtaar Mbacke la di magam ñoom ñaar nag ñoo bokk soxna Awa Guèye ak maam Moor Jaara sëriñ Maxtaar Mbacke moom itam nag ku ko fonkoon la sëriñ Maxtaar Mbacke itam nag daana ko gane si sëriñ Abdul Xafoor Mbacke itam nag daana gane ji itam nag sëriñ Maxtaar ci dëkkam bii nag di ngomeen ñoom ñaar itam nag dañoo jaxasoo woon di sëriñ Mahmoud Mbacke toogee toogaayu maam Moor Jaara itam sëriñ Abdul Xafoor itam nag mi ngi woon itam nag Mor Mbacke nag daana ñëw itim nag Mbacke Bawal daa ko fa seet si itim daana wax itim nag ñi muy àndal na ngeen am ngor na ngeen fonk itim nag sëriñ Touba Seexul Xaddiim xasidaam itim nag lu ngeen ci mën ak lu ngeen ci mënul nag dee leen ko jàng mu amit nag ay jàngkati xasida yoo xam nii nag kóllëre nag la jàppante woon nag ak ñoom xew-xew yu bari yu masaa am jàngkati xasida yi nag ñoo ëpp nag luñ ko daa jàngal ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdoulaye Seck sëriñ Moustapha Seck bu bu Touba Madiana ak ñeneen ak ñeneen noonu mu fonke woon xasida yi nag ba noonu itam nag ni la meloon itam nag ci alxuraanul karim ba ñim daa àndal na itam nag daana leen wax ne lu ngeen ci man ak lu ngeen ci mënul nag lu ne dee leen ko def nag ci alxuraanul karim ji ba jàppoon na ajjuma ju jot daana rayub gàtt nag ngir alxuraanul karima noonu itam nag ni la meloon itam nag ci jaamu suñu boroom ñi ko xamoon nag te jege woon ko lool seede nañ ne sëriñ abdul xafoor nañ daa déggee nag waajuram nag Mamor Jaara ci nangoo julli ci yu gudd nag te yàgg mooy itam nag diirub liñ ko xamitim noonu itam nag ni la daa jaamoo nag suñu borooma itam nag na ngeen goree na ngeen am itam nag yéene yéene nag képp koo xam ne nii nag def nga ko ci yow dong nag lay dellusiwaat moo tax itam nag yéene itam nag lu am solo la daana wax itam nag goree itam nag lu baax la ñu teew teewlu itam nag ci ay kàddu ngir barkeelu nag ci kàddu nag sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke ci waxtaan wu doon waxtaan nag lenn nag ci ay taalibeem ci nag ñu am yéene di def nag lu baaxa jàmm ak lu baax ak lu yiw dañ ko yéene sa morom boo ko yéene sa waat moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke nag bi mu matee jël soxna ñu boole kook nag soxna ummi ba mook soxna ummi ba nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññe nag sëriñ Moustapha Mbàkke imaam sëriñ Basiiru Mbàkke soxna Awa Mbàkke ak soxna Jaara Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna jéegéey mook soxna jéegéey nag amoon nañ ak njaboot mën caa ràññe nag sëriñ Cheikh Mbàkke soxna Maam Busa Mbàkke soxna Ayda Mbàkke sëriñ Mahmoud Mbàkke soxna Ami Mbàkke soxna Bintu Mbàkke ak ñaareelu sëriñ Basiiru Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax wax soxna Awa Diop moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke mook soxna Awa Diop nag am nañu ak njaboot ñu man cee ràññee nag sëriñ Xaadim Mbàkke ak Cheikh Abdul Axat Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Ami Kan mook soxna Ami Kan nag benn bant nag lañ am muy soxna Ndey Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna Awa Diop di mëneen soxna Awa Diop mook soxna Awa Diop itam nag benn bant lañ am muy soxna Faati Ja Mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax nag soxna Faati Njaay moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke mook soxna Faati Njaay nag benn bant itam nag lañ am soxna xadi mbàkke soxna yi nag la dëkkoo woon njaboot yi nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot yooyu mu am nag ci soxna yi mu dëkkoo woon nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna maam awa mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ siidi jeng nag lañ ko joxoon mook sëriñ siidi jeng nag benn bant lañ am di sëriñ basiiru jeng ginnaaw bu soxna awa nag jógee ci loxoy sëriñ siidi jeng lañ ko jébbal nag ku ñu wax sëriñ abdoulaye saar mook sëriñ abdoulaye saar nag am nañu a njaboota ñu mën cee nag soxna anta sëriñ babacar saar sëriñ ibrahima saar soxna nag jógee ci loxoy sëriñ Abdoulaye Sarr lañ ko jébbal nag sëriñ Abdoulaye Dieye nag bu ndar mook sëriñ Abdoulaye Dieye nag benn bant lañ am muy soxna Ndeye Marème Dieye ginnaaw bu soxna Awa nag jógee ci loxoy sëriñ Abdoulaye Dieye lañ ko jébbal nag sëriñ Mbaye Diop mook sëriñ Mbaye Diop nag benn bant lañ am muy sëriñ Moussa Diop doom ji nag di soxna Maam Boussa Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Ibrahima Ndaw nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibrahima Ndaw nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Maam Mor Jaara Ndaw sëriñ Alsaan Ndaw soxna Assu Ndaw soxna Adama Ndaw soxna Awa Ndaw Adama ak Awa nag ay seex lañ ak ku ñuy wax nag soxna maam jaara ndaw ginnaaw bu soxna maam Bousso nag jógee ci sëriñ Ibrahima ndaw mi lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ daam loo nag ca sànnoosi mook sëriñ daam loo nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññe nag sëriñ Cheikh Bombaali loo ak sëriñ Abdul Xafoor loo doom ji nag di soxna Bintu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Maam Moor Mbàkke Sikaab nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Maam Moor Mbàkke Sikaab tim nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag soxna Njaxat Mbàkke ak soxna Assu Mbàkke Ceerno Ndooy nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ceerno Ndooy nag benn bant lañ am muy soxna maam jaara Ndooy ginnaaw bu soxna ami nag jógee nag ci loxoy sëriñ Ceerno Ndooy lañ ko jébbal sëriñ Kàbbu Mbeng waaye mook sëriñ Kàbbu Mbeng nag amuñu nag ak njaboota ginnaaw sëriñ Kàbbu Mbeng soxna ami Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Abdu Waxaab Jóob bu Daaru Jóob mook sëriñ Abdu Waxaab Jóob nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna Ayda Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke nag benn bant lañ am am muy sëriñ xaadimul bachir mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci yi sëriñ touba cheikh abdoulahat mbakke moom soxna ayda mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ touba cheikh soye bu mbàkke mook sëriñ touba cheikh soye bu mbàkke itam nag benn bant lañu am muy sëriñ jiili mbàkke doom ji nag di soxna xadi mbakke bi mu matee dem kër sëriñ taala njaay nag lañu ko jébbaloon mook sëriñ taala njaay itam nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ moodu ak soxna mat leen njaay ginnaaw bu soxna xadi nag jógee ci loxoy sëriñ taala njaay lañ ko jébbal nag sëriñ birahim jóob mook sëriñ birahim jóob itam nag benn bant bant lañ am muy soxna aji Diop ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Birahim Diop moom soxna Xadi Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Gàdd Kan mook sëriñ Gàdd Kan nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdoulahat Kan sëriñ Aroona Kan soxna Awa Kan ak soxna Baali Kan doom jii nag di soxna Ndey Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Maxtaar Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke moom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Maxtaar Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke nag ak njaboota Mbàkke ak soxna faati xaas Mbàkke doom ji nag di soxna faati ja Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Mbusoobe moom sëriñ Maam Moor Mbàkke déndéey nag lañ ko jébbaloon moom soxna faat ja Mbàkke nag moo sëriñ Mbusoobe nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ Jéeri Waadaan Mbàkke ak soxna Asu Mbàkke njaboot yi ñu leen tuddal nag ñooy lenn nag ci sëti sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke yi mu wéy desitim ànd ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ba tudde na sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke doom mu nekkin nag ku bëgg daana def itam saa bu xëyee nag di ko jàng bi mu demee nag ba nekk mag ab gisam itam nag soree tut booba itam nag daana def saa bu xëyee nag wutub rajo ñu tegal ko ci nag bandub alxuraanul karim mu di ko déglu fonk googu mu fonkoon alxuraanul karim wutoon na ñoo xam ne ni nag saa su ne nag dañuy jàng alxuraanul karim daana def itam nag ajjuma ju jot mu rayal leen ab gàtt nag ngir alxuraanul karim tabax na jàkka itam nag ci biir këram bépp dëkk ba mu jaar itam nag daana fa gàmm defoon na fa itam nag daaray alxuraanul karim defoon na fay nag kuréelu itam nag fépp fu mu daa dem itam nag daana ànd ak jàngkatu xasida yi ñu mën cee ràññee nag Baye Abdoulaye Niang bu Ndar conférencier yi daa waxtaan ci sëriñ Touba Seexul Xadim itam ku daa ànd ak ñoom la muy sëriñ Xaadim Mbàkke conférencier ak sëriñ Abdoulaye Jéey nag bu Ndar soo delloo ci way yii ko sëriñ Abdul Karim Mbàkke defal moom sëriñ Maxtaar Awa Géey moom Maam Moor Jaara mi ngi ñuy wax nag lu baree baree bare bare nag ci dundug waajuróom googu taxawaay nag bu waajuróom amoon ci njabootug Maam Moor Jaara gi bëgg na gum leen bëggoon fonk nag gumu itam nag gum bëggoon sëriñ Touba Seexul Xaddiima yéene nag jum amoon nag ci Mamor Jaara dunduk sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke daal la ñu sëriñ Abdul Karim Mbàkke moom sëriñ Maxtaar Mbàkke Awa Géey di ñu xamal ci way nag yu mu defal sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke nak ci ak nekkinam ñu teew teewlu ko lu leen ma way sëriñ Abdul Xafoor jàmbaar ji fiy saxoo jëfal Bàmba lu wóor seex la bu yàlla def mu feese ay xekkam ak leeri yàlla mi karim mi gis xolam ku sax fi moom bur yàlla xëy defar sa mbir defal la ay teraanga ngay boroomi su baax nañu dëggoom bur yàlla ak sayxul xadim ñooy wettalam saxoo di jàng alxuraana di mbiram ak xasiday Cheikh Bamba lii moo di bëggam fu mu gis jullit buy bëgg aw ci yoonu mbon mu wan ko yoon wu leer ba koo ko tegg bon naatal na xol yi dagg xel yi ci dogoom làmp la buy leeral lëndam amul moroom jaaraama Cheikh Abdul Xafoor mooy nit ku baax bayal na diine tool bu rëy ci def lu baax Cheikh Abdou yàlla jox na koy kiraama mu nekk seex bu xam teraanga Cheikh xarit Cheikh Abdou am na ay ngërëm ci ay jëfam buur yàlla ak Cheikhul Xadim gis nañ xolam Cheikh Abdou digle diine moo di ak bëggam ak xeet tilib jullit mu nekk nit ku gëm sëriñ Abdul nag ko sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim nag tuddee Abdul Xafoor daana wax ne nag sëriñ Abdul Xafoor mii dama koo rusa rus googu ko sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim nag rusoon taxoon na nag doomu sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim yi nga xam ne nii nag bi ko Cheikhul Xadim di wax nag fekkee nañ ko ñoom itim nag fonkoon nag sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke mii ñu mën cee moo eggale am njàngam moo ko wutal na nag kërug Touba sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke tudd na ñaari yoon doom Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke mu nekk nag ku Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke fonkoon am na bis nag ci ndar Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag ñëwoon fa lenn itam nag ci doomu Cheikhul Xadim itam nag ña nga fa woon sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke itam nag fekkee na jataay ba ginnaaw bu mu nuyoon teeg Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag ba noppi la Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag di xamal Mbàkke mu di ko xamal ne daal Abdou Xafoor mii gisuma lenn nag ëppalee xanaa ay at dong nag lañu koy ëppale waxi Cheikh Modou Moustapha Mbacke yooyu sëriñ Mandiaye Bey nee na nag fekkee na ko sëriñ Mandiaye Bey moom itam nag nee na bisub keroog itam ñu bare bare bari nag jébbalu nañu itam nag ci sëriñ Abdoul Khafour Mbacke mii ndax waxi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke jooju sëriñ Ibrahima Bousso Mbirkilaan nee na li taxoon nag Cheikh Mamadou basiir nag gënoon a fonk sëriñ Abdoul xafoor Mbacke mii mooy seede boobu sëriñ Touba nag waxoon ci moom nag te Cheikh Mamadou Bachir nag nag dama ko rusa sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke daana wax nag sëriñ Abdul Xafoor li tax ma fonk la maag yow nag dañoo bokk jikkoo bi sëriñ Abdul Laxaat Mbàkke nag di yokk jumaa ji ñetti million nag la ko ci sosoon di ko xamal ne itim sa àddiyee itim nag bokk na ci àddiyee njëkk nag ci jumaa ji sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag ku fonkoon itim nag sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke la wax nañ na ma nag dajee nañ nag ceesa ñoom ñaar ñëpp nag ci ak ngan waxtu julli jot sëriñ Saaliwu nag di xamal sëriñ Abdul Xafoor nag jiiteel sëriñ Abdul Xafoor itim nag di xamal sëriñ nag yow yaa war a jiitee sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag di ko wax ne jiiteel koo jiite nag ñu jéggal ko sëriñ Touba moo tufli ci sab nopp nag Abdul Xafoor mu nekkoon itam na ko jaxasoog Cheikh Mamadul Faadal Mbacke ñoom doomi Cheikhul Xadim yi nag bàyyi woon xel lool ci doomu Mamor Jaara bii nag di sëriñ Abdul Xafoor Mbacke Cheikh dul Faadal Mbacke nag jaxasoo googu mu jaxasoo woon ak moom foboon na soxna suñu wax na soxna Faati Njaay joxoon ko sëriñ Abdul Xafoor Mbacke nag ngir mu dëkkoo ko sëriñ Touba Cheikh Soye bu Mbacke itam nag ku ko fonkoon la ba dëkkoo woon nag nag doomu sëriñ Abdul Xafoor Mbacke sëriñ Abdul Xaadir Mbacke itam nag naka noonu am nag daara nag yu mu taxawaloon nag ak i kër ñu mën cee ràññee nag kër gu mu amoon nag ci gànjool kër gu mu amoon itam nag ci jama ci wetu ndar kër gu mu amoon itam nag ci dëkk bi nag di ngéey ngéey di dëkkum maamam kër gu mu amoon itam nag ci misra gong maam balla amoon na fa suuf itam nag amoon fa daara booba nag sëriñ ismaila mbàkke di magam nag moo fa nekkoon amoon na kër itam nag ci tuuba amoon na kër nag ci ndakaaru ak ay këri këri kër nag ci suufus gànjool googu bépp dëkk itam bu mu nekkoon naaloon na fa jàkka nag wala juma ci biir dëkk yooyu mu naaloon jàkka nag wala itam nag gàmmu ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam njaboot gi mu fi bàyyi nag te sëriñ Moustapha Mbacke imaam nag nekk nag ca bopp ba ña ngay eggale nag seen naali waajur yooyu amoon na suuf itam ci dëkk bi nag di saam di dëkku baayam amoon na suuf itam nag ca misra di dëkku baayam suuf yooyu itam nag pàkk yam fa amoon taalibe yi itam nag la ko séddale mu wéy nag des nag ci dëkk yi mu nekkoon nag am fa kër amoon fa nag ay daara di leen nemmeeku nag ak itam nag di leen seeti wéy nag des itam nag Touba ci ndigalul sëriñ mi ngi génn àdduna ci dëkk bii nag waajuram nekkoon nag di mbàkke bawal ci quartier bi itam nag di mbàkke xewar ci bisub gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru tabaski ci atum nag ci gàddaay gi gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru tabaski ci atum 1429 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy samedi 27 décembre ci atum 2008 samedi 27 décembre nag 2008 ñu yëgal ko nag ki fi toogoon toogaayu sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadiima Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke sëriñ Muntaqa Mbàkke Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yi Mbusoobe yi ca wetu waajuram wa nag Maam Moor Jaara ginnaaw ba ko sëriñ Muntaxa Mbàkke jullee nag bañ denc ko nag ba noppi seede bu am solo itam nag la def ci moom wax na nag doomu Maam Moor Jaara nag mi ngi nii ku daa yaatal itam nag mu ngi nii ku faboon lislaam nag defoon ko ab toolam itam nag mi ngi nii jàmbaar nag dem na soo delloo nag ci way wii ko sëtam defal di sëriñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Basiiru Mbàkke jikko nag yu maamam amee woon taxawaay itam nag bu maamam yore woon dëkk yi mu jaar nag moo xam ci loxoy cheikh mamadul bachir ba ni mu demee ndar ndakaaru ba ni ko sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke nag waxee ne mu ñëw tuubaa ñu ànd nag liggéeyal sëriñ tubaa cheikhul xadim jikkooy sëriñ abdul xafoor mbàkke daal nag akuk dundam la ñu sëtam bii nag di sëriñ seexuna mbàkke moom sëriñ basiiru mbàkke moom sëriñ abdul xafoor mbàkke nag di ñu waxal ci marché nag bu mu ko defal nag ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag ñu teewlu ko alhamdulilahi ma sant yàlla sant yoneen baak satu mamballa sant waral lii moo waral nuy sant jullit dafay war a saxoo ak cant àddina moo ban mën a war dëddu ko waaye amul xarit bàyyi ko kii du sama waay day war ku baax di war ku bon bawul kenn jarul a bëgg du xarit du lenn du wéeruwaay dub jàppuwaay du saxuwaay matul xarit amul njariñ it tajuwaay ku ko waayoo mu nax la farba sànk la boo ca ngoyee du yàgg rek mu bif la te yàlla ne laa tan sa teg nasiibaka moo tax ba dee su wax ne àdduna ba ko bàyyil lu bon te jëf lu baax tamuy bari xam na àdduna mi dafay war na nooti cib sang bu baax sëriñ ba seex abdul xafoor mbàkke mu baax xuqal buka u loolu moo ma tax a jooy àdduna bàyyi naa ko moo ban mën a njuuy dëkkewul woon lu dul di jaamu yàlla ak topp sunnas yu ne nib buur yàlla moom daa saxaw woon di jëfal seexul xadim moo tax mu laq ngërëmam minal xadim tegoon na tànkam ci li neex borom saam tampe na seen yaari ngërëm bila malam moo yeesalaatoon kër borom saam mbàkke ci alalam yeesal ka na man soxna jaara di mag ci maam daam ku xam borom saam xam ko xam ne moo ko jur moo tax bu koy liggéeyalit daf cee xër jàmbaari xeex ba dem na ñàkk nañ ko jullit yëpp bokk ñàkk xam ko si xabdu dem na wooy ku baax ka dem na jooy naa ko jooyu xol na gor sa dem na seexul xadim moo ko foboon doomoo ko yàlla dogal baayam ba far xamul ko moo joxe aw turam tuddee abdul xafoor mooy jàmbu laq njëggalam lie ko wóor te moo ne ku ko sopp buur jéggal ko yàlla nañ ko sopp nun te sax muy kéemaanam dolli ko ay may yu du jeex kenn du ko xam boole ko ak sëriñ ba seex basiiru mu def ci moom lu nit ñi ñëpp seeru tarbiya tarqiya ba far tafsiya ko saahiram ak baatin mu fab rangal ko ko def na ko àndandoo di wër biir Sénégal ba mujj far turum siiw ni senegal moo dem ba Ndar jaar caari wéy ndakaaru umma sa teew def fa lu ñëpp yu waaru footoo gànjool ñëpp moo leen jommal mboora ak mbawar ko ñëpp moo leen jaaxal moo dem mbawar wane fa daani mas naa ñëw dëkk fa biir mbawar di wër suñ bàyyi yabal di xàll maam abdoo nga war ca kaw fasam wa jaan ja mujj kar ko suñ bàyyi dagg ko far taqale ko dëkk ba ñëpp jug di yuuxi jooru nekkata booba jaan ji moo dim tuuru ñu wax ko maam abdu mën naa leen toog leen ana daggiti jaan ja yéen dajale leen ñu boole daggit ya sëriñ ba laal ko ci ay loxoom jaan ja ne ñàllit romb ko def na karaama yu xajul ci mbind ji wax amul sikk te kenn du ko dindi dem na bandar saxal fa ñëpp saxal tey gàmm mu njëkk a feeñal ñaari rakka ya fa ndar bam sëlmalee la wax na lii dootul far dal dina ñaari rakk yii day jëm kanam maam Abdu yaa dis góor te yaa am ay ndam ndakaaru moo leen tàmmaloon korite murit yi ñëppay teew te kenn du wuute dëkk yu bari daana dem jàngal leen seen farataaki sunna yit jubal leen ci yàlla laa ilaha illallahu muhammadun arsalahu ilahu yàllaa di buur te xam na mooy def lu ko neex mu def ko jël abdul xafoor tey moo ko neex xam sariya booleeg xaqiqatum bu wér nel xanxa julli juróom jooy na ku ko deetu julli si abdu waxtu wu ne daf daa julli da daa julli ba bëccëg ak yoor yoor naafile yeeg safaaki witar liyee ko wóor donn na baayam ba ca téeméeri rakka ya maam abdu fu mu toll di kabbar rakka ya sunna suma ak xayrihi saxal na leen tabaski ak korite it fonkan na leen àllarba jañ daaf ci koree tamxarit lu teew ci jàmm yàlla day jug na bërit weeru koor jooy na ku ko jullee day génn woo nit ñi ñëpp naafile tey joxe ñam tey waare daawul yam file di soññe it ci yàlla ak yoneen baa dellooti buur jubli ci seyxi bamba quraanu jooy na ku ko deeti jàng cheikh abdu waxtu wu ne daf daa jàng aljuma day génn ñu tas kaamil ba sédd la ñuy wàcce kilay kamal ba fonkoon na alquraan ba daana diglu kaseti quraan yi daan xérawli daa wax ne naa koy diglu ngir sa bët yi gisam bi leeratul ci xool araf yi moo tax bu daa ko diglu boole teewlu xolam tey xeralu ndax moom xolam ba alquran moo ne ca biir moo tax bu jàngul diglu booleeg tadbiir makaarimul axlaaqi moo doon ay jikkoom jëfam rafet mu yaatu moom amul moroom du jëw du rambaaj mukk daawul xasse du fekk fu fuñ koy defee daawul part day jël ku bon ku bon defar ko moom ba mujj baax moo tax ku taq moom mu daal di mujj baax defar na ay mbokk ba ñuy defaraate seexal na ay jaambur ba ñuy seexalaat saa boo ñëwee fi moom mu faj say xaajo moo ko da ngay ñëw mu teral berndeel la nga dellu mu jox la ay alal moom foo ko fekk lu mu yor da koy joxe day wax dëgg ku man di doon du koy naxe miskiin yi ak faqiir yi ñoom ñàkk nañu jiriim yi ak baayoo yi ñëpp yëg nañu jiriim yi ak baayo yi moo leen doomoo ci leen defal si Abdu yow de juumoo dadaa dimbali naar ak wolof ak nit ku ne goneem du yab magam magam du dóor gone tabax jàkkaa ko gënaloon tabax këram dimbali nit ñee ko gënaloon lu mën di am waxtaane mos di saf mu ne toog di joxeet moo ko gënal toog di naxe maam Abdu xett li mbindeef la def pexe këram da daan toog bi yekk joxe ñam yërëm mbindeef yi lool di leen jox alalam xàmmeewaloon doom ak kaneen ak taalibeem ñëpp la daa yemale maam Abdoo ñu da daa saxoo waxtaan ci yàlla di ñu ñaax taalibe yeeg njaboot gi lay xiir ci lu baax ci lii sax dàkk ba wuy ji yàlla ba bis ba muy dem ak a jeex ci yàlla di lul ma wax la demam nga moom nim yéemee yàlla ko may Cheikh Abdou moo ko yéemee mu wax ne muudu ngom naa ko am nga sutura mu naa ko ñaanal ma man ma am si man dara sëriñ bi naa ko kaala ma manta yiir ma ma dénk la ab dénk ngal la diglu ma mag naa gëm leen yàlla te jaamu am jom tey sakk sarax kon da ngeen di laq ndam tey dëkk tuub tey jaamu buur ba yàlla tey dëkk muñ tey sant yi buur yàlla ni tëg juróom ñaar horoo fi tuuba weeru tabaski ba la tombeel booba at ma di xaama takk sasin maa fekke wàccik sëriñ abdul xafuur mbàkke dee sàmbari di ñaar waar gaawu la 2008 li lee ko doy waar xibaar ba siiw weesu ndar ak ndakaaru waa sénégal ñëpp yuuxi jooru mbooloo ma ànd buurandoo fa saasa ñëpp ànd teewandoo góor ak jigéen mag ak ndaw ak di daanu ku ne di yuuxu taalibeem yay kaanu mbokk ak xarit ak wëllëreem ñëppi jooy kenn xamatul looy def ku nekk naa wóoy garab yi ak jaww ji dal na nemm suuf si di jooy ba asamaan si sax sa ngéemu mbooloo ma buurandoo jubal mbàkke xewar ngir bëgg a bis ba def lu baax a jëm di daw ngir xalu bu jeex àdduna moo ban mën a war kenn du fi sax gaaw su keroog ca takk saanu suuf dëppoog ñu noddu takku saan mbir maanu soof waa ajjanaa koy teeru xayrul anbiya al rusulu wal amlaaku summal awliya seexul xadim ak borom saam may magam ñëpp di teeru di ko séeral ay ngërëm nopp lu jël ca xen li te dal di dal yow jannatul firdaw si moo si sab dal ay xalifaam nag ñii la tëddee sëriñ Moustapha Mbacke imaam moo ko wuutu nag ci atum ay cëram te yàggal ko nag fi toogaayu waajuróom boobu ak mboolem nag ñu mu séqal sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke nag amul bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal bis yi nag mu fi taxawaloon nag bis yooyu itam nag yépp itam nag njaboot gi nag ñu ngi koy wéyal muy lu mel ne nag gàmm dëkk yi nga xam ne nii nag jaar na fa nag daafat liggéey amoon fa itam nag kër dëkk yooyu itam nag dëkk bu ne itam nag taxawaloon na fa ak gàmm dëkk yooyu gàmm yooyu itam nag mi ngi dund nag ba nëgëni ñu mën cee ràññee nag gàmm gu amoon ci bu ñuy wax Fuutu gàmm googa lañ koy amal amoon na gàmmu itam nag gum daa amal itam nag ci gànjool gàmmu googu itam nag naka noonu daana gàmmu itam nag ci ndar gàmmu gi itam naka noonu caareen mbawoor itam nag daana fa gàmmu gàmmu caareen mbawoor gii nag saa bu ñu gàmmoo nag bu bis bu del si nag lañ koy amal bis yi nag la taxawaloon bis yi itam nag la ak njabootam jàppitim ñu di ko wéyal nag ndigalam ñuy ñaan ca doomu Mammoor Jaara ba sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke ka Seexul Xaddim waxoon ne man maay sa lépp yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas nag ci barkeem nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey waajuram nag Mame Mor Diarra amiin nag Mame Mor Diarra amiin nag Mame Mor Diarra